d'une part euh, am na avantage am na inconvénient parce que surtout surtout inconvénient bi sax mën naa ne moo ëpp ndax famille bi moom loolu ñëpp def nañ constat bi kër goo dugg même couple da nga koy gis dañuy nekk benn chambre waaw jigéen bi day toog ni góor gi toog ni presque kenn talul te morom yow da ngay liggéey sax wàcc boo ñëwee euh, sa soxna sax pour may la ndox sax problème la waaw foo ko fekk mu ci téléphone bi waaw moom daal doon na loo xamante ni boo seetloo am na avantage mais inconvénient bi moo ëpp surtout bu dee ñun Sénégal yi ni ñu koy utiliser par rapport ak nag les pays européens parce que ñoom yenn temps yu bëri duñ ko jël di ko ci def mais bu dee ñun fii moom surtout ñun fii moom Sénégal ni ñu utiliser réseaux sociaux dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa jéggi dayoo. waaw dëgg-dëgg benn côté boobu moom euh, euh, foofu rek moo xaw am faay tuuti waaw mais nag lu ci bëree bëri it mënuñoo dund sans moom ndax jamono moo ko laaj. waaw ñun accès bu accès bu nu am si réseaux sociaux yi surtout moom sunu liggéey lu baree bare bari da koy doxal ba na yenn paan yooyu bu amee rek lu ci baree bari moom dafay daal di sooxe ci sunu liggéey lu baree bari loolu moom wax dëgg yàlla ñu bari moom rafetlu wuñu ko ñu bari rafetlu wuñu ko kantaanag su manee ñàkk moom moo gën ñu si veillé bu baax a baax waaye daal euh, coupure bi moom loolu wax dëgg ñi kenn rafetlu wut ko dëgg dëgg kenn rafetlu ko ndax ñun ñëpp ñoo si am accès waaw ñun ñëpp ñoo am accès ci réseaux sociaux parce que surtout jamono ji ñu toll nii moom dafa doon loo xam ne mooy doxal lépp ci àdduna. Euh, ba ma koy yëg fekk guddi guddi na yor naa WhatsApp mais taaluma ko woon li may yor sama téléphone bu ndaw moo ëpp ndax ci laay déggante ki ma bëgg a dégganteel ma moo tax WhatsApp ma daal aw ma sax TikTok aw aw ma YouTube waaw man yooyu sonalu ma man sama téléphone tuuti moo ëpp li may kii. WhatsApp boo gisee ma yor ko group kii yi ma bokk sama groupe choral sama groupe xarit yi may àndal moo tax may utiliser WhatsApp mais man sans loolu man moom sonalu ma. man moom mën naa dund sans réseaux sociaux waaw doy na ma mu ngi nii sama ñaari téléphone laa yor mën naa xëy suba ba ngoon sànni fee bu mag bi kii Sylvie sax moom la may xasee man du ma yàgg ak sax téléphone bu mag. waaw bu ndaw rek laay yor moom laay gën a yàgg ñëpp xawee rek ku ma gis sax dina xam li ma wax dëgg la lan lañ may xasee sax par par trois mois laa yor téléphone ma taalal ko yor sama tuuti dox ak moom man moom ndigalaas. waa dëgg la démb whatsapp beeg yooyu noonu c'est vrai que ni amoon na amoon na benn paan mais man moom ni ma ko dundee moom métti woon na torop parce que téléphone yi jël nañ fay nañ taal nañ ba sonn ndax vu que ni ñun moom dañoo jël suñu temps presque deful dara dañuy jël suñu temps yëpp focaliser ko ci ay whatsapp genre Instagram Facebook TikTok moo tax métti woon na trop benn instant. dama jaakaaroon ne problème man kase la parce que saay bu ma taalee ñëwul rek dem naa ba redémarrer sama téléphone bi sax foog ne man kase la mais après ci laa dégg rumeur yi que ni whatsapp moo am problème. presque ñun jeunes yi xam nga dañoo jël suñu temps bi même su dee sax loolu noonu normalul sax mais suñu vie yëpp presque dañ koo jël def ko ci réseaux sociaux yi. bu doon amul tey jii tamit dina met trop mais dinañ jéem a dund sans moom parce que nekku ni loolu kese moo am ci réew mi pour dund